yàq ko yaxet te dégg naa ñu naan ñuy ngur naan dañ koy privatisé waat te gis nañ dafa privatisation juróom ak yu demee noonu mais boo fexewul ba am ay unité tey Sénégal li ñuy produire gerte yëpp Copéol moo fi nekk mënul jël lu bëri euh, Sonacos euh, ak yu mel noonu boo leen dajalee ñoom ñëpp mënuñu transformer six cent mille tonnes de dara d'arachide léegi la ci des si fan lañ koy yóbbu ñàmb gi noonu <laughs> euh, leneen ak leen noonu donc loolu day freiné mbay mi mbay pour mu sotti dëgg-dëgg kay bay dafa war a xam ne su ma paree bay war naa war naa ko mën a écouler facilement parce que quatre-vingt pour cent yi am naa ay usines yu ko soxla parce que dañ koy transformer def valeur ajoutée lenn li ñu delloo ko ci marché Sénégal léegi la ca des ñu yóbbu ko exportation mu andi fi devise li ñuy wax valeur ajoutée foofu de devise dëgg loolu mooooy valeur ajoutée dëgg dëgg bi ñu mën a am mm. mais su loolu amul yow mi bay li yëpp soo paree def jub waa Pastef Dakar barki dem bu dekki nañu kàjje bu baree bëri bëri léegi naa ñu naan léegi nuñ koy nuñ koy jaayee nanga question boobu warul sax posé wu réew mu normal donc soo gisee problème mu agriculture yëpp ñàkk vision boobu entre ñetti secteur secteur primaire muy agriculture bi ak càmm gi ak napp ak euh, kii bi napp gi nga jël secteur secondaire. Mhm. mooy am usine buy transformer. Mhm. a yooyu nga am ay unité yu ndaw fii mhm. war nañ fi am ñett ñeenti unité yu ndaw. nga xam ne ay regroupement GIE yoo koy yooyu soo ko amoon rek te nit ñi dañuy sawar a mbay bay bay parce que dañ naan su ma paree rek am naa am naa fu ma ko yóbbu. yu ñëw génération yu ñëw wax naa la léegi nii dana ci amit ñu baax de xëy na fi mu nekk yàlla ngi ci tànn nit ñi ngee tànn rek yàlla nag moo def yëfam. ñu ngee tànn ñan ñoo war a jiiteyaat Sénégal mais rikk na nekk doom doomi gor rikk na nekk doom ñu ñu ñeme rikk na nekk ñu xam ne dañu doylu yaakaar yaakaaruñu seen dund wala yaakaaruñu defar Sénégal ci bitim réew déedéet Sénégal fii bu nu ngemb woon billaay daanu fi génne loo xam ne ci alal la loo xam ne daanu ci mën a dund joxe ci ñeneen ñu dund bu nu góorgóorlu woon def ko lu mu war a rek daanu ko mën dex gi géej gii rek mën na ko pêche bii rek bu ñu defal woon ci Sénégal gii daanu ko mën a defar lu mën a jëriñ ba ba jëriñ faw ceeb bii ñuy bay bu ñu ko bayee woon nu mu waree nu mu normalé dan dana jëriñ àdduna yëpp lay jëriñ kon boog na góor lu ba bu ñu ñëwee ñoom nañu góore rek am fit te doyloo loolu daal laa amoon di ko wax di ko tëjee sama waxtaan wasalaamualeykum wa rahmatullah dañ wax ni bu soobee yalla confiance bobu ngeen am ci ñun aduna du dox ba ñu war ko inshallah je ne serai jamais un leader qui vous trahira politique nak mo metti cioli li na euh nit ñi dañuy wax di suñu amul argument dañu sos sos nañu sos sos sos ba waye luñu sos 8h bala midi sénégalais yëpp xamni dara du ci dëkk lu nañu essayer ko wax ci nit ñi waye li ngeen gis ci ñun salaire politique c'est pourquoi mon salaire de député dama ko maye parce que j'ai pas besoin de vivre avec l'argent de la politique. surtout bëgg ngeen yaakaar ci si vous nous faites confiance matin midi et soir.

trait mooy jokkale Sénégalais yëpp ku nekk nord ku nekk sud ku nekk centre ku nekk bitim réew parce que yàllaa ma bindee ci bi may tànnal ay wayjur mu tasaare ma ci Sénégal yëpp ndax sama wayjur bu góor waa Casamance la di joolaa dëkk bu ñuy wax Bessir ci Bulof ci biir Casamance ma ci am nag fierté bu amul fu mu yem sama wayjur bu jigéen dëkk Bawol dëkk xombal juddoo fa yaroo fa màggee fa sama maam bi ko jur moom tudd Ulay Sow dëkk Njaayan Pendaaw fële ci Fuuta ma traversé ganjol ba Siin kon man mënuma man Sénégal yépp laa yemale je suis moi-même benn croisé benn croisement entre tous les Sénégalais. àdduna du yàgg bi ngeen dégg ñu ne ci li ñu bokk ñun ñëpp muy réew mi Ousmane Sonko def na ci lu mu ci warul def wala jël na ci lu mu warul jël. Je n'ai jamais été impliqué dans ma vie dans quelque chose de louche. Je n'ai jamais touché un centime qui ne m'appartient et je ne toucherai jamais à de l'argent sale de ma vie. Parce que jaraluma ko moi je ne suis pas eux eux ils ne sont pas moi. Adna du dox ba ngeen dégg ni dem jaay ngoram comme niñ ko fait gis ci politique pour ay avantages moo xam alal guñ ko jox wala ay postes yu ñu ko wax wala yu demee noonu loolu mooy sens suñu combat te ko may. gannaaw euh, suñu yaru yaruwaay jur ñu leen di gërëm di leen sant li ñu ko may gannaaw euh, valeur ak diine yi nga xam ne jële nañ ko ci diine ak ci suñuy aada yi ñu yare li ñu ko may mooy lii mooy dañoo teel a yaru ci euh, ñaq loo dundee na ko ñaq ma fexe ba man seen doom jikko yu ñu def ci man ci njub ci dëggu ci jiital intérêt général bu ñu musa dem ba am ci gàcc loolu moom la ñu jiital tey ba li ñuy def ni ci politique moo tax éducation am solo nañu fexe ñun ñëpp ba la ñuy jiital ci suñu njaboot na doon ay valeur ak ay qualité jàngal leen liggéey jàngal leen endurance jàngal leen honnêteté intégrité loo moomul ba ko lu sayoon newul bu ci wax nañ ko teel a jiital suñu njaboot mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, jaajëfal nu fas yéene am jàngat bu am solo bu nu fas yéene ànd ak yéen di leen ko di leen ko dëgtal nii euh, tournée agricole bi nga xam ne président Ousmane Sonko euh, door na ko ci Sigan Casamance la ko njëkkee tey mi ngi jëm zone bi nga xam ne nii mooy côté Louga njëkkee Darou Moussi ngeen gis image yi noonu mu dem seeti woon Pastef Darou Moussi ak toolu Pastef Darou Moussi. waaye dafa am jàngat bu am solo c'est la première fois ñu am politique homme politique boo xam ne nii déggul au pouvoir maanaam jotagul ci réew mi ba pare di participer ci développement réew mi homme politique boo xam ne nii daawuñu tàmm di am homme politique boo xam ne nii bu nee militant yi wala askan bi nan leen dellu ci tool yi ñëpp dem songandoo tool yi vacances agricoles patriotiques egguwuñu sax ci première phase bi déwén lay doon mais gis nga partout Sénégal patriotes yu bëri nañ presque 200 et 300 hectares mais loolu sénégalais yi ñoo koy jëriñoo suñu paree ci marché bi lay dugg kenn ku nekk man nga cee jëfandiku doomu dëkk mooy defar dëkk benn nit du defar dëkk wala ñu mu àndal aw askan ñooy jóg pour defar fa seen dëkk xoolal programme président Ousmane Sonko bii partout Sénégal ndaw yi dugg ci àll bi di bay façon bay bu nekk nag façon meññeet bu nekk ñi di ko bay imaginer lii nii di jëm kanam déwén naka la war a deme te yemuñ ci ci mbay moom ñu ngi fi bërëb yi war a am ay garab yi war a nga xam dafa war a am environnement bu baax ndawi Pastef yi ñu ngi fa di samp ay garab eh, di defar seeni seeni i seen i quartier école yi jege ñu dem fa defal leen ay garab fi ndox yi taa ñuy góorgóorlu lañ ca man di ko fa génne. bu bu réew mi yëpp commencé ànd jóg pour développer seen dëkk pour seetal seen dëkk pour doxal seen dëkk Sénégal day jëm kanam ba pare nag dañ koy def ci xol bu sedd ak bëggante cofeel bu bu bu am solo parce que da ngay remarquer patriote yi cofeel bi am ci seen diggante kon lii lu am solo la na ci ñëpp jàpp le combat continue